sëriñ Abdou Lahad Mbacke moom sëñ Cheikhouna am sëñ Sam Mbacke Ndoulo yàlla dogal ñu doon jàppale Macky Sall waaye yàlla dogal na actuellement nii ñuy wax ak yow amatuñ euh, bokkatuñ ab liggéey maanaam moom bokkatuñ aw yoon parce que dañuy wax rek ca lañ digge woon ginnaaw bu ñu siyaaree Cheikh Mamadou Mountakha ci waajtaayu màggal gi ci safar gi ñu ne di ñaan saa borom yàggal ko fi lool ca mu ànd ak wér di ñaan saa borom dogal it kilifa yi diine yëpp saa yàggal leen fi di ko gën a ñaanal naal yi mu naal ngir bëggoo liggéeyal Serigne Touba maam ju tedd ja saa borom ko fi loolu mu def ko ba ni ko bëggee lépp ñu ànd koog moom ñun mbokk taalibe ak jullit yëpp di siyaare jullit yëpp ak murid yëpp ci safar gi ñu ne di ñaan saa eggal ñu ca màggal gi ak jàmm di wax ne li ñu fi indi mooy juróomi ponk rek yoo xam ne ku ne xam na ne Touba ak assainissement bi ni mu demee sonal na doomu aadama yi lool muy mbënd mi li ko waral nag mooy état ci boppam. lim fi waroon a def ci ay euh, maanaam euh, bassin rotation bassin de rotation benn bassin rek a fi am bassin bi fi am mooy bassin central bi nekk Kër Ñang ak it stockage bi nekk Darou Rahman Touba di dëkkuwaay boo xam ne deuxième capitale ma waxoon ne ma ma ma wax ne ma wax ne Touba deuxième capital ma wax ne Touba ci boppam benn bassin daf fi dafi fi dafi fi daf fi yeex daf fi fi daal. benn bassin ni Touba yaatoo baaxu fi bassin yi boo xoolee benn bassin moo fi nekk muy bi nekk Kër Ñang ak benn stockage bi nekk Dar Rahman Touba di deuxième capitale waroon am gën gaa gàtt ñeenti bassin bassin yoo xam ne ñeent lay doon nekk ci ñeenti gox yëpp nga nga yokk bu Kër Ñang bi mu doon central bi ngir bu fa dajee ñeenti bassin yëpp buñ serve Kër Ñang mu mën a yóbbu ca stockage bi nekk Dar Rahman waaye dëkk bu war a am ñeenti bassin ba juróom benn bassin am benn bassin dong mu war a boole ndoxum taw mi war a boole ndoxum kër yi loolu xam nga ne moo waral bi yàlla dogalee taw bi dikk euh, maanaam bassin bee ca kër ñang dem ba niveau bi mu waroon a jël jël lu ko ëpp mab bu ba kër yëpp ba ba ba bassin bi ndox mépp génn dugg kër ñang dugg fépp ci Touba dugg fu mel ne yoonu Daaru dugg fu mel ne Euh, fi ñu koy waxee Daaru Xaddim muy ñaari cafetière nga xam ne foofu ñaari maam lu mat 60 kër génn nañ fa yoonu Daaru lu mat 300 personnes 300 familles génn nañ fa loolu boo ko xoolee di loo xam ne ñàkk a taxawaayu état la ca lim ñu waxoon mooy assainissement bi dinañ ci jàpp ci keroog bi nga xam ne Aliou Ngouye Ndiaye ñëwoon na ci cérémonie màggalu Touba deux euh, maanaam 2019 ak 2018 yëpp danay woon nawet bi xam nañ ne ci assainissement assainissement bi xam nañ ne dañ cee war a jàpp ndax nawet bii ñu jëm si. incha allahu rabbi ak yi ci topp yëpp day doon ci biir màggal gi kon assainissement bi war nañ cee dox jëm waaye mu doon ay diggee kese ay nare kese Touba sonn cinq personnes ñoo fi faatu ci mbënn mi ca loolu état yu wu fi waxu ci ministre de l'intérieur bi mu ñëwee barki démb ànd ak ministre euh, ministre bi yor wàllu assainissement muy Serigne Mbaye Thiam dafa wax ne président ci boppam fàttewu leen waaye lam ñu dig mooy dafa wax ne génn na 15 milliards pour ndox yi ndox yi nga ne ñooy nekk ci biir kër yi cinq milliards yooyu buñ ko dix mille quinze milliards yooyu buñ ko génnee ngir ndox yi nekk ci kër yi dix villes lañ ci bokk la lañ ci lañ lañ ci tànn dix villes yooyu Touba ci la bokk loolu mooy lum ñu dikk ca ñëwagut muy 15 milliards yooyu pour ndoxi kër yi ndox yi nga xam ne moo nekk ci kër yi état di ko séddale ci dix dix dix villes Touba bokk ci loola ñëwagut dañ ñu koo dikk mu ne waat ne it na incha allah rabbi fii ak màggal 4 dañ ko andi ngir bassin rétention bee nekk kër ñang ñu man koo yokk ngir mu mën a servir à cent pour cent li mu war a servir yoonu daru ngir màggal gi nit ñi mën a dëkk fi ne ni màggal gi ñëw na ca 4 milliards yi ñu wax it ay kese la liñ fi diggee woon lépp defuñu ko 4 milliards yi nag ñoo ngi wax président buy ñëw incha allah rabbi samedi bi ñu ñëw bu ñëwee ba siyaare sëñ bi ba pare na génn 4 milliards yi lii daar daar la ci màggal gi nañ ko def ci bassin retation bi nga xam ne moo nekk kër ñang ñu mën koo yokk mën a yokk pompage bi ngir li nga xam ne it moo nekk Darou Rahmane muy bassin stockage bi lépp man faa dem wax na it bu ñu defee 4 milliards yi 23 milliards dañ ko defaat 5 milliards yi ci njëkk mooy li nekk bassin rétention yi nekk Touba muy bi nekk kër ñang ak bi nekk dinañ ko defar ci 5 milliards yi buñ ko bu ko defee maanaam euh, dix huit milliards yi ci des vingt trois milliards la wax boo ci génnee cinq milliards dix huit milliards moo ci des dix huit milliards yooyu mu wax ne dinañ wut bassin nga xam ne ci gox yi ak quartier dinañ fa yokk ay ndox loolu treize milliards ci des moo koy def ca loolu yi dafa wax ne lenn loo xam ne teew na ci amut wala lu ñu indi ëndaale ko wax ko dañ koo wax rek ca mu doon loo xam ne ay promesse la ca ñu wax ne it maanaam loolu ñu wax ci maanaam Touba vingt trois milliards yi fi war a dugg yëpp loolu dan ne dinañ woo techniciens yi ñu def ay études études yi état nag surtout état bu bëgg a defi tappale mën naa def 15 ans mën naa def 10 ans ay études lañ ñu dig waxuñu ay études nañ andi liñ fi war a def muy 23 milliards yi def ko ci dëkk bi ndax ku ne xam ne Touba di deuxième capitale li fi ne ci ci ressource ñu koy ñu koy jëlee ci mu koy mu koy def ci keesu réew mi moom Touba màggal gii rek nga xam ne ku ne xam na ne semaine màggal ci boppam Touba rek dina génne 215 milliards wala 250 milliards lañ wax ne environ dina ko génne ci semaine màggal gi waxuma la li nga xam ne jour à la koy génne ci ci ci at ñëpp. kon Touba kuy génn deux cent cinquante milliards ci benn semaine nga war koo jox vingt trois milliards di ko dagg-daggee di ko dig ci andiwoo ci dara loolu mooy tax dafa loolu mooy dafa yabbaat Touba cinq personnes feeb maanaam nelaw nañ ci assainissement bi ci waxuñ ci dara. Eh, Touba mosquée gis nga ko fii ni mu mel gis nga jumaa ji fii jumaa ji mëtu 30 mètres fii day taa depuis des années mi ngi taa. yoonu gaarasu yoonu yoonu gaar bu ndaw bee day taa lépp mag jumaa ji mutut 30 mètres nga xam ne kon sorti bee mu sorti Mbàkke bee buy dugg moom mi nga xam ne dafiy ñëw fi mu day jaar bu duggee dina gis na mu mel bon gum bon nga xam ne moom buy dugg ci yoonu Mbàkke wee di communauté rurale bi buy dugg dina xam dina bon dina xam yoon yoon yu bon wun bon wum bon moom président dina xam ne assainissement état la war ak mbalit mi loolu état ko war a def du mairie mairie nag war na ko cee soñ waaye état moo yor assainissement euh, moo yor assainissement région yi ak département yi ak commune yëpp ak mbalit mi defuñ ci dara bu loolu jàllee it santé bi boo xoolee Touba ni mu toll di deuxième capitale ñetti basu de santé nga fi mën a wax Daaru Marnaan ak bi nekk euh, Daaru Xuddoos ak bi nekk euh, nuñ koy waxee di jéemul ñett yooyu nga fi mën a wax hôpitalu ma hôpitalu Ndaamaatu bi mu fi nekk léegi ëpp na 30 ba tey nii moom it assainissement bi ndox maa ngi ko wër ñu ko ku amoon malade mënoo ko faa yóbbu Matlaboul Fawzeyni mooy ñaareel ba ca murid ya ko fi def Ablaye Wade da koo occupé woon rek nga xam ne kon Touba benn hôpital am ci 40 ans yi am benn hôpital boo ñaareelu hôpital bi muy Matlaboul Fawzeyni moo ko fi defal boppam ñetteelu hôpital bi nga xam ne président mi ngi koy campagne ñu yëg ne màggal ci raax la toll ak defi poto ak i monter ay verre pas pareegut karawuñ ko defaguñ ko dara xanaa bala ngaa inaugurer nga fexe ba lépp pare nga dem ba occuper say docteur nga xam ne bu ñëwee directeur bi nga fal moom ngay àndal ak docteur yi yenn kilifa yu mag yi ci docteur yi ñu ànd ak yow ngi ak kilifa yi dëkk bi ngeen inaugurer mais 60 pour cent lañ ci def wala 70 pour cent ne dañ koy ubbi ci màggal gi mu doon politique ma ne man li sax li may nuru mooy fa mu njëkkoon a ubbi ubbi fa mu ubbi woon mooy bi campagne. ne day def tournée économique tu defu doon tournée économique da doon campagne bi may campagne ba dem Fatick ubbi na fa hôpital njëkkeew Touba bu ñu politiquee Touba ubbi na Fatick ubbi Kédougou ca yooyu day wane ne eggut ndax li mu war a def Touba bu ñëwee mooy euh, ubbi ko ca ca ca kon loolu la def ci ñaari hôpital yëpp nga xam ne kon Touba amul amul case de santé amul hôpital yi fajukaay loolu mu diggee woon ko ca war koo def muy assainissement bi ak fajukaay di santé boo xoolee euh, maanaam euh, lamp yi lamp yi leerut. li fi nekk ku si néew Touba ca kanam a ko fi def Touba di commune di commune boo xam ne ëpp na ay raison kenn mënut a fexe bañ war a am li ñu war a am ci courant ñu am ko Touba mafia bi ci courant bi muy buñ ko indee par màggal lañ ko indi buñ ko indee ne dañuy samp fee ay kilomètres ci euh, courant def naa enquête ba xam ne loolu jaar poto yi rek samp duñ indi câble loolu jaarut yoon lu tel ne Touba ci sécurité it ku ne xam na ne Touba bisu xasida yi jàll moom président yónni wu fi benn élément ca loolu muy lu doy Touba it ni mu toll na ñëpp xam ne benn poste benn benn oto la ñu am ñaari poste police a ngi fi ak benn commissaria ca amut benn lu dul benn oto waaw mas ngaa gis lu toll ne Touba deuxième capitale am benn bureau benn oto boo xam ne oto police boo xam ne bu ñu waree defeere day jaar ci poste yi ci des jaar euh, jannatu doog a yóbbu ñuy defeere ci benn oto ak ni Touba toll kon moo lay xamale ni Touba toll sécurité bi ñoru leen. santé bi ñoru leen Touba mosquée ngi coupé ndox mi ndox mi kenn ko ne xam na ne leen ci waxoon defu ko ndox maa ngi coupé màggal gaa ngi ñëw njëg yi seer lépp seer ndawal gi seer euh, suukar si seer ndox mi seer courant bi seer lépp seer kon na président xam ne ñun ñi nga xam ne ànduñoo ak moom ñuy wax ne buy ñëw incha allahu rabbi ñi kontaanut ci moom ñëpp dinañ génn Touba nag moom. nañ bàyyi ne sëñ Muntaxa président day xaritu président sëñ Muntaxa ñëpp la fi nekkal di ndug yërmande citoyen lambda bii bu demoon moom lay gën a fonk ci président buñ ko politiqué nan daa fonk président ñëpp la fonk màggal gi ñëpp la woo président nag bu dee ñëw ñi ko faloon Touba fal ko ci département bi muy def tournée économique jaarut bawal di def lu ne du jaar bawal defut dara bawal ba war a màggal si bëgg a politiqué hôpital bi ñun ñi àndoon moom. ñëpp ñi nga xam ne dëkk nañ Touba dëkk ci région bi dëkk ci département bi gisuñu lu fi président def buy ñëw dinañ ko kar samedi incha allahu rabbi ñoo ngi woo ñëpp ci eltonu ci eltonu ci eltonu mbàkke bi ak totalu mbàkke bi ñu wër ko ginnaaw moom nee na bëggut gis lu xonq ñu peinture ko ak ak ak ak ak ak peinture bu xonq moom ci jëmmi boppam wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala